ci biir Bambey euh, bi ñu liggéeyee ak euh, collectivité bi mooy euh, mairie bi ñu identifier ñu tolloog fukki kilomètres ak benn environ ci ay voiries yoo xam ne war nañ ko réaliser fukki kilomètres yooyu ak benn bi ñu xay xaymaa lu muy jar mi ngi toll environ ci lu mooy tuuti 6 milliards muy juróom benn milliards yoo xam ne ni évaluer nañ ko ay travaux yoo xam ne identifier nañ ko biir Bambey ci ni Promoville di liggéeyee nag dañuy liggéey en fonction de li ñu am ci ay ressources ci lu ñu njëkk a démarré euh, nga xam ne euh, constaté nañ ko tey ñu ngi démarré lu tolloog 1 kilomètre 600 euh, ci ay voiries yoo xamante ne ni ñaari axe la mooy yi ñu nekk mu toll ci 734 millions yoo xam ne démarré nañ ko te loo xam ne entreprise bi nee na daf jël na engagement yi pour que di d'ici le 31 mars ñu mën a terminer travaux yooyu actuellement ñu ngi ci 40 pour cent taux d'exécution maanaam soo jëlee téeméer ñeent fukk yi. voilà ñeent fukk yi def nañ ko ba pare euh, te ñu ngi ci dernière couche yi pour que ñu mën a euh, finaliser travaux yooyu. xam ngeen ne Carrefour la ku jëm Ziguinchor jóge dakaar jóge Saint-Louis fii ngay jaar ku jógee Ziguinchor jëm dakaar fii ngay jaar ku dem Saint-Louis ngay jaar booy dem tubaa aussi pratiquement boo jógee fii ngay jaar donc mu nekk Carrefour boo xam ne day desservir sur euh, quatre points cardinaux yëpp mu nekk njariñal Bambey njariñal Sénégal également.